pôle sud pôle nord pôle sud-est pôle nord centre pôle ouest huit pôle yëpp laa bëgg ni pôle bu nekk dinañ fa def ñaari fan ñaari fan yooyu dina benn fan boo xam ne dañuy wër sillonner pôle bi rek def ay caravane saafonteeg population yi waxanteeg nit ñi deuxième jour bi nag moom la ñuy organiser ci pôle boobu un JEGA wala un terra meeting boo xam ne dañ fay dajale wax waa pôle boobu lan la ñu fas yéene war def ci pôle boobu ba suñ ci paree pôle boobu dina jóge ci ndool dem ci naataange loolu mooy campagne bi. bëgguma ñu nekk ci campagne yu dàggasante wala campagne yu xaste ñun ñoo takk càq bi naga ñun programme lañu am gis-gis lañu am loolu la ñuy campagner moo tax kenn ku ne ci yéen bu ci kenn xeeb boppam jëlal document bi lire ko xamal li ci nekk yow ci sa bopp nekkal un acteur de vulgarisation et de communication de la vision 2050 lii mooy doon suñu campagne kon bis tey le message que je veux lancer à tous les militants et les militantes de Pastef lenn rek moo war a doon suñu yitte mooy tabax réew mi wax luy jëriñ réew mi liggéey lu jëmale jëmale réew mi kanam am na nag ñu jàpp ni fi Sonko jaar ba egg war nañ faa mun a jaar yegg ñoom it defe naa booy ñoo naan sonko sonkolu waaye waaye ñaar laa leen ciy wax ñaar bi ci njëkk mooy homme politique homme politique da nga war a am identité propre danga war a xàll sa yoon waroo nekk ci toppandoo ak bëgga niroo mais da war a génne sa gis-gis génne sa méthode ñi dinañ ci ànd ñële duñ ci ànd mais ku la xool walla ku kii mun nen kii li mooy identité politique am ñaareel bi ma ci wax mooy ndongo buy topp sëriñam war naa def ndànk war naa def ndànk de ndax sëriñ bi sëriñ bi lu mu la jàngal jàngal jàngal rawati nag bu dee jàngalu la sax dina am benn xadis bu mu téye du joxu la ko dina am benn xadis bu mu téye joxu la ko wala benn bind ci fiq boo xam ne téye na ko te joxu la ko moo tax ñu war a def ndànk torop torop torop torop kon bis ni ki tey nañu orienté wu ñun waa Pastef rawatina ndaw ñi nga xam ne yéen ay borom réseaux sociaux yi yéen yéen ay borom réseaux sociaux yi. nañu orienté sénégalais yi mën nañoo ràññee. qui fait que sur l'exercice 2017 nous avons accusé un gap de 161 milliards sur les recettes fiscales vous ne le démentirez jamais et ce gap-là va vous poursuivre Et à la fin du premier trimestre 2018, euh, on est déjà à un gap de 40, 40 milliards sur les recettes fiscales. Ensuite, nous avons, et nous l'avons démontré, puisque personnellement j'ai suivi le FMI et je vous en ai fait ampliation, que les années passées, vous de l'ordre de 216 milliards sur les ressources extérieures. Et c'est extrêmement gravissime, ça veut dire que tous les chiffres que Nonobstant votre rengaine habituelle sur les notations ou je ne sais quoi, tous les chiffres sont defe naa vidéo yi sénégalais yàgg nañ koo seetaan. waaye li ma leen bëgg a wax pour daaneel mooy nitu Pastef ak képp koo xam ne allié Pastef nga nañu orienté wu ñun ci suñu agenda bopp bañ a nekk ci réaction. parce que loolu ñun ñeen ñun ci ñu lañ ko jàngee fi ñu jaaree Macky Sall ak nguuram ba egg si fii ku yaakaar ne mën nga ñu fa jaarale ndax nga sa bopp nañu wut yeneen méthode moo gën moo tax jaruñoo perte temps jaruñoo tontante dama bëgg bis ni tey ñëpp nañu concentré wu ci vision deux mille cinquante master plan deux mille trente-quatre plan d'action deux mille 29 intoxication bi nag léeg mu laaj tontu waaye nañ ko def ci niñ ko war a defee te duñu dugg ci wàcce suñu bopp ndax weesu nañ foofu bi ñu toogee ba léegi nag ñaareelu argument bi nga xam ne ñu ngi koy essayer utiliser mooy bëgg a gëmloo Sénégalais yi ne am na ay scandale yu am ci suñu nguur benn sànn scandale amu ci zéro scandale du dossier ONAS Cheikh Tidiane Dièye du dossier Azer d'ailleurs Jean-Michel Jean-Michel dama bëgg nga yéeg fii xam ngeen lu ma bëgg dama bëgg Sénégal yëpp rawatina yéen la jeunesse JPS bu nous avez donné des raisons d'être fiers de vous à travers ce jeune homme qui est ici présent dama bëgg yéen ñëpp ngeen tàcc ko ndax voilà un jeune boo xam ne dénk nañ ko responsabilité mu ñëw toog gis ni marché bi niñ ko tëggee woon teg nañ ci ay commission ak ay surfacturation yoo xam ne fi Sénégal waroon am masalan mille mille électrification six cent lañ fa am mu ñëw dénoncer contrat boobu renégocier ko ba tey mu permettre ñu Sénégal amaat fa mille wala mille cinq cent loolu su dul patriotisme lan lañ koy tuddee te mu def ko ci anam yu leer naññ amul benn centime boo xam ne percevoir na ko ci nga gis ay nit yoo xam ne dañ leen di fay pour ñu wax ñu ne ci télé ak rajo yi naan scandale Azer scandale Azer il y a zéro scandale Azer et je veux féliciter ce jeune et ce jeune à démontré que nous avons des raisons nous avons des raisons de croire à la jeunesse sénégalaise d'investir dans la jeunesse sénégalaise et de vous confier des responsabilités vous les jeunes du Sénégal merci Jean-Michel kon gars fi may daanelee wax ji mooy di leen féddali suñu kontante di leen wax ni on a un pays à construire et la révolution a commencé te dara mënatu ko téye on va changer ce pays corruption dina jeex ci réew mi privilégier les intérêts étrangers dina jeex ci réew mi clientélisme dina jeex ci réew mi jël ay programme yoo xam ne du priorité dina jeex ci réew mi lii mooy la le challenge de Pastef ci lii lañ leen woo ànd ceeg képp koo xam ne loxoom set na képp koo xam ne loxoom set na te bëgg na réew mi am na sa place ci li nga xam ne moom la ñuy taxawal moom la ñuy dëgmal te muy passé par une victoire éclatante au soir du 17 novembre 2024 je vous remercie am na benn xale bu réer boo xamante ne mi ngi fii képp koo xam ne da ngaa àndoon ak xale boo xamante ne gisuloo ko xamal ne xale baa ngi nii dafa réer ñu ngi nii ñu teg fii y a une dame également qui s'appelle Khady Soumaré téléphone dafa réer képp koo xamante ne for nga fi téléphone mën nga koo indi ñu mën ko koo jox encore une fois de xale bii dafa réer képp koo xamante ne da ngaa àndoon ak xale mu réer boo ñëwee fii di nga ko mën a gis mën ko jël merci beaucoup. Euh, am na koo xam ne nee na daa perte ay lunettes am Ici ou d'ailleurs, nous sommes des...